الفاهم كمل الفاهم الفاهم الفاهم كمل الفاهم الفاهم الفاهم كمل الفاهم الفاهم الفاهم الفاهم الفاهم الفاهم كمل الفاهم الفاهم الفاهم كمل الفاهم الفاهم الفاهم كما الفاهم bi la. sëriñ bi moom gàmmu gaje bi moom waaye moom mii de. moom moom moom gi. kon papa. kon lay dalal. di la jox sa wàccuwaay sa gàmmu gee mu ngi nii sa ñaan rek lañ ciy sàkku yàlla yàlla gën a yàggal ànd bi amin wéral cër yi amin ñoo ngi leen di gërëm bu baax eh, fa tabaarakallaahu itam monsieur le maire mu ngi nii ci ginnaaw Yves Lamine Cissé ak njabootu maire bi yëpp teew nañu ah, def lañ daan def ndax loola moo nekkoon seen seen aada fépp foo xam ne jaami yàlla yi am nañ fa xew-xew daani bàyyi seen yitte ñëw teew boole ci teraanga defati nañ ko de kon sëriñ bi ah, Yves Lamine mii day dañ lay seedeel ne jàmbaar na lool ci wàll wii léeg-léeg mu tooñ ko nag nee na ne ko gàmm gi sab gàmm la yeneen gàmm yi nag da wàll wàlli si rek kon nag loo man ak loo manul def ko ci gàmm gi waaye loolu itam ah, mu ngi ciy góorgóorlu bu baax baax yoon wi amoon nañ ci jaaxle waaye itam def na ci jéego def na ci jéego ba barab yu bari ba barab yu bari xaw nañ ko rataxal xaw nañ ko rataxal eh, eh, eh, nee na wàllu liggéey bi ci dëkk bi taxaw na ci bu baax a baax wàllu ndox mi itam taxaw na ci bu baax kon ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax monsieur di la jox wàccuwaay monsieur le maire. ak mboolem ki yi nga xam ne teew nañ fi te wëllëre ak bokk ak mbokk moo leen fi indi gërëm nañ leen sant nañ leen képp ku fi ñëw jàppal ne sëriñ bi jox la loxo ak ñàkk laa jox loxo ak si nga ci xolam bég na ci yow kontaan na ci yow ñaanal na la kon yàlla na yàlla dooli sutura bu baax a baax yàlla defal jàmm yàlla fay nu yiw asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi ak mbokki taalib yi ak mbokki dëkkandoo yi ak wëllëre yi ah, bu ngeen gisee lii tey ngeen xam ne dégg nga noo ci xew-xew bu rëy muy xew-xew diine islaam boo xam ne bii dégg nga fii ci palo dégg nga ci ki nga xam ne mooy jibi combaan mu alpha combaan nga xam ne ku ko xam xam ko ci diine islaam xam ko dégg nga maam ci ah, dimbali jaam ñi dégg nga maam ci diine islaam tuubal ñu bari nag dégg nga teg leen ci yoon wi dégg waaye teewul loolu mu def ci diine islaam mu ngi ko ànd ak ay mbokkam dégg nga yàqalu ko dara digganteem ay mbokkam dégg nga yi mu mas yi mu dëkkal ñëpp dégg nga kon ñoo ngi wax na dégg maam ñoo ngi leen di siyaare yéen ñëpp yéen ñi nga xam na dégg maam yéen a ngi seetaan fii nga xam ne tey dégg maam mooy Prestige Thiès TV dégg bu Pape Doumbia moom moo ñëw comme ni ngeen ko xamee muy seen xarit di seen wëllëre seen lépp dégg maam nga jàpp ko def ko muy doom def ko muy xarit def ko muy wëllëre ba pare dégg maam nekk ak moom di liggéey boo xam ne bi liggéey bu rafet fii ci Palo ak Morola yëpp dégg maam kon ñoo ngi wax ne dégg maam ñoo ngi nuyu mboolem koo xam ne kii teew na fi dégg nga ñuy sant bu baax di gërëm itamit dégg nga maam ki nga xam ne moom mooy dégg sa taaw bu baax bii noo koy siyaare bu baax di siyaare mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi toog ndax imaam. aadi si mu ngi nii toog dégg maam imaam aadi si mu ngi nii wax dëgg yàlla ak imaam mbay nga xam ne way juram moom moo nekkoon dégg maam foofu ci jàkk alfa Combaan moo fa daan jiite moom moo ko yor tey di dégg maam ba pare ànd ak kuréel gi nga xam ne gi ñoom ñooy saytu dégg maam lépp luy diina islaam kon ñoom tamit yàlla def nañu teew fi ak waa cees gépp dégg maam kon imaam noo ngi leen di wax ahlan wa sahlan wa tartiba bila adadin di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax ne nag itamit wax dëgg yàlla noo ngi siyaare bu baax monsieur le maire dégg nga di ko siyaare mooy Yves dégg nga Lamine ñoo ngi lay siyaare di la sant di la gërëm ci turu kan Pape Doumbouya Pape Doumbouya nee na mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm mu ngi lay ñaanal yàlla yokk sa wér ak sa kàttan ndax liggéey bi jàppale ngeen ko bu baax a baax a baax dégg nga kon noo ngi lay ñaanal dégg nga fi nga bëgg yegg yal na la yàlla àggale lu kowe sa njort ci barke Seydina Muhammad saa sallam te rafet nañ ci njort incha allah ndax ki nga xam ne tey jii dégg maam fii nga nekk dégg nga wax dëgg yàlla jàpp naa ne waxuma la dara waaye tund wii képp koo xam ne ki yàlla na la fi nga nekk fi dégg nga na nga sant yàlla ndax ki nga xam ne mooy góor gi Alpha Thiombane liggéeyal na sunu borom dégg nga liggéey boo xam ne bii kenn ku fi nekk ne yàlla mën naa yokk say xéewal te loolu dégg maam kon noo ngi ñaan ci barke Seydina Muhammad yàlla yokk sa wér yokk sa kàttan paam nee na sant na la gërëm na la moo ngi lay ñaanal itamit dégg ma yàlla yokk sa fan ak sa wér ak sa kàttan ngeen xam ne prestige bii tamit yéen ko moom ngeen xam ne tamit dégg maam moom xam na ne moom ci doomu Morola la doomu dégg maam palo gii la doom seen doom la dégg nga seen jibi moom seen doom la seen lépp la dégg nga xam na dégg maam ni nga ko jàppale ak ni nga ko fonke ak fi ngeen ko teg dégg nga kon moo ngi ñaan ci barke Seydina Muhammad salaa sallam lépp loo xam ne dégg maam mooy dégg nga li ngeen bëgg yàlla na leen yàlla defal lu koy seen jot waaye moo ngi ñaan dégg maam moom yéene bi mu am ci dëkk bi ak dégg maam li ko wër dégg nga ngeen ñaanal ko yàlla yokk xéewalam ba lu mu ci bëgg rek mu defal leen ko ndax moom lépp lu xew fii bëggul dee maam yónni kenn moom mooy ñëwal boppam dégg nga kon lu mu fi def rek nee da koo war a def lu mu fi def rek xeeb na ko da koo war a def kon moo ngi leen di sant kon dégg nga kon monsieur le maire yaag mboolem ñi nga àndal yéen ñëpp dégg ma ak waa dëkk bi ak mboolem seex yi ak kilifa yi ak imaam yi na xam ne sant na leen. waaw kon su ko defee rek ñu def sëñ bi def ñaan rek incha allah daal di génn biti kon bisimilah amin nee na Faati ak salaatu Faati امين يا رب العالمين امين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi al azim bokk jullit yi ci ndigalu sëriñ bi kenn ku nekk na jàng fatiha wala kenn ku nekk na jàng salaatul fatiha kenn ku nekk na jàng salaatul fatiha jàng fatiha ñetti yoon ayatul kursi suratul ixlaas ñetti yoon fala xeer naasi salaatul fatiha ñu def ko adiyatu rasulillah ñun ñëpp yéene mboolem yonente yàlla yi ak sahaaba yëpp ak waliyu yàlla yëpp ak mboolem kilifa diine yi ak mboolem këru diine yi ñu ci suñu këru diine yi bopp barka ñaan bi yàlla ko yàlla sotti ci lis bi ak l'islam bi barke ñaan bi yal na ko yàlla sotti ci àdduna bi yëpp barke ñaan bi yal na yàlla sotti ci Afrique yëpp barke ñaan bi yal na ko yàlla sotti ci Sénégal yëpp barke ñaan bi yal na ko yàlla sotti ci Tiwaawoon ak mboolem këru diine yi bokkoo ak moom sotti ko ci Serigne Alpha Combaan ak njabootam àdduna bi yëpp dafa yëngu Afrique yëpp dafa yëngu dafa mel ni nit ku ràmm nit ku ràmm nag laajul nga di ko wax ne ko fan mooy góom fépp ay góom adduna bi yëpp moo yëngu Afrique yëpp yëngu Sénégal yëpp yëngu barke ñaan bi ñu yéene ko adduna bi yëpp Afrique yëpp Sénégal yëpp ñi faatu ñëpp ñiy dund ñëpp ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu ko defee ñuy jox. suñu mbokk oustaz Paye mu continue bu nekk lu jàng salatul fatiha lii ñu ñaan nun ñëpp nun ñëpp nañ ko siyaaree yonant bi sallallahu alayhi ak ni ma ko waxee léegi yéene sëriñ Alpha Combaan yéene adduna bu jag ci waa adduna l'islam bu jag ci jullit ñi àllaaxira bu jag ci waa àllaaxira ngeen baal ma ma wax sëriñ bi mu tëj ñaan bi bismillah asalaamaaleykum maa ngi nuyu kenn ku ne turam ak santam di nuyu sëriñ Jibi Combaan nekk xalifa kër maam Alpha Combaan ñu ñaanal ko yàlla may ko wér oyofal yéen bi sëriñ Jibi Combaan ñu ngi lay nuyu ci turu commune bi yépp waaye ñu ngi nuyu tamit ci turu administration bi yépp ndax sous-préfet woo na ma nee na naa ko teewal kon ñu jàpp ni dama teew ci turu maire mais teew tamit ci turu sous-préfet su ma teew ci turu sous-préfet teew ci préf su turu préfet turu gouverneur waaye turu ministre de l'intérieur turu président de la république kon tey yendu bu diis laa laa am kon boog sama sëriñ ci turu président de la république ñu lay ziar ñu ngi lay gërëm di la ci liggéey bi ngay def ci kër maam Alpha Thiomba ñu ñaanal la wér yàlla may la nga yàgg fii yor kër gi yorin bu génn loolu la ñaan président de la république nee na mu ngi gërëm mu ngi gërëm tamit kilifa diine yi yëpp ñëpp ñi fi teew président mu ngi di gërëm ci ñaan yi ngeen ko ñaanal ndax élection Sénégal yi am na ci jàmm ci dal ci tey lépp sotti na deret tuuruwul jàmm am na loolu doon sant yàlla bi ci des moom falu na waaye ba léegi sàkku ñaan ci yéen ndax yéenam tamit woyof cër boobu defe naa ni mën naa ko wax ci turu président de la république bi ci des mooy tamit ñu góorgóorlu ñun taalibe ñu góorgóorlu jàpp bu baax a baax ci kër gi ndax kat suñu bàyyiwul suñu bàyyee day daanu suñu bàyyee day daanu kon ñëpp ñu ñëw ci ngoor gi ak ñi bëggoon ñëw ñëw ñu ñu ngeen leen di gërëm di leen sant ndax kat sëriñ bu wootee ngeen ñëw da ngeen war a sant maa ngi dalal en tout cas ci turu commune bépp gan bu fi ñëw am na ñoo ni mbir ma seen tur waaye ràññee nañ ci ku jógee Tiwaawan defe naa ku jógee Tiwaawan bu ñëwee si sant si ñu war a gërëm ñu war ko sant war ko dalal donc Ousmane sëñ Ousmane ñu ngi lay bu baax a baax. di kontaan ci sa ñëw bi ci des mooy sant tamit ñi woy sànq woy nee na trop surtout kii mujjee woy mooy Ibra Jibi Jibi Mbay nga jàpp ni ku jàpp ci suñu Alpha Ndane dañ nga jàppale sooba yàlla kon Jibi sooba yàlla dina gën a jàppale pour que li ngay def nii mu gën a jëm kanam en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci li nga def sànq. ñu gërëm tamit ñëpp ñu fi ñëw sécurité ñëpp ñu xam ni ñëw nañu jigéen ñi même ñu nekk ci waaj yi ñu ngeen leen di gërëm kontaan nañu trop ci seen liggéey ñu gërëm tamit suñu partenaires yi ndax ñun dañoo am ay partenaires yu xam ni ñoo ñuy jàppale ci liggéey bi bu ñu waree gàmmu comité d'organisation bi Pape Alpha ñëw na ci ñun waaye tamit ku ci des mel ni Amadou Ciss ak Babas di topp liggéey bi fan la toll liggéey bi am nañu yaakaar ne jaar na yoon partenaire yooyu nekk mën nañ ci lim Pape Doumbouya Pape Doumbouya bii mbir mi xawee ma ne ko Doumbouya mbir bi dina diis ci man dama bëggoon nga jàppale ma ci wàllu groupe ak wàllu ndox bu naan def na ko indi na ko kon Doumbouya ñu ngi koy gërëm ñu woo bu gërëm nit waa Sentrace bu ñuy defar tali bi waa Sentrace ñoo amal machine muy yépp camion yi ci carrière waa Kër Santas tamit indi nañu ndox tey kon ñu ngi gërëm aussi waa Centras ci seen jàppale bi ñëpp ñu xam ne jàpp nañ ci liggéey bi Touba Fapal la ñu ngi leen gërëm même bu ñu fàttee am naa yaakaar ne waa comité d'organisation dinañ ko mottali bi ci des sama sëriñ nga jàpp ni tey bu ñu sañoon courant bi tàkk fi tey mais yàlla mooy doxal mais commune bi. jël na ci Gaxataan juróom-ñeenti million ak ñaari fukki junni ak juróom-benn neuf millions cent trente mille fay nañ ko déjà entrepreneur dina tàmbali liggéey bi pour jëlee courant bi cité ba fii kooku commune bi moo koy def ci xaalisu commune bi moom la soobu yàlla bi ci des bi ci des soobu yàlla waa Palu am nañ jafe-jafe ndox bu baax a baax jàpp nañu ni fii ak ñaari semaine en tout cas jee dinañ jënd pour forage dinañ jënd pour forage bi Palu benn groupe écologiste bu jar 6 millions juróom benn million pour que ndoxu Palu ndoxu Palu jafe-jafe bi dañ am nañu yaakaar ni bu ñëwee fii bu ñu amee groupe pour secours lay doon groupe bu ñu amee groupe pour secours lay doon courant day tax ndox mi bari soobee yàlla jàpp am nañ ci yaakaar yoon bi nag waxatuñ ko parce ñun dañuy defar alxuraan rek waaye programme PUDC bu ñëwee dina ko defar bu mu ne boy soo a yàlla vraiment gërëm nañu leen ñëpp sant nañu vraiment ñu am yaakaar ni ci guddi gi lañ ko yàlla may lépp ñuy ñaan ku fi ku fi indi feebar ku fi indi tawat ku fi indi jafe-jafe la yàlla saafara yëpp yàlla mën na ko en tout cas maa ngi ñaan ñëpp ñu ñaanal ma tamit ndax yéen bi diis na mais mën na bu ñëpp jàppee.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 daaw dañu fi toogoon yàlla def ñu bari dem yàlla bàyyi ñu fi kon ñu nekk war nañoo waxaat alhamdulilahi rabbil alamin ndax ñi dem gënuñu leen ñaanaat yàlla sëriñ bi yàlla ko yàlla bàyyiwaat ay at yu bare bare bare bare ñu jiital ci nuyoo bi nag suñu sëriñ muy maam Ousmane Sy ndax uh, képp kuy tijaan rek ku ko santa si nekk moom mooy kilifa gi ñu ñaan ko yàlla yàlla ko yàlla bàyyi yàlla yàggal ko fi yàlla may ko wér mu yàgg doxal mag ñi suñu wax nag lu ci bari ndax uh, sëriñ Alpha bu jëlee sëriñ Jibi def istixaara kan moo war a jàngal sëñ mu am ku mu gis mu dem foofa ne ko du foofu defe naa mu defaat istixaara ñu wan ko ne kiy jàngal sëriñ ji te mu war a war a uutu fii alaaji Ibrahima siis la ba pare Ibrahima Cissé la ndax booba Alaaji Ibrahima amagum ndax moom tamit bokk na ci mag njëkk dem màkk moom à cinquante et la dem màkk à cinquante et moom man juddoogu te Alaaji Ibrahima Cissé dem màkk à mille neuf cent cinquante et un nee boobu bay ne ba am deux cent trois cent cinquante mille ci jamono yooyu xam naa seen jéggi mu ci mu gis ñu ne ko Ibrahima Ciss doomu Biram Ciss góor gi ñëw pour di laajte di ba ñu booba góor gi mu nga Saalum ñu ne ko mu nga mu yónnee ko li ji bi wax ñu daje ci gaal boobu sëñ alpa moo yor àll bi sëñ ji bi war a jàng kooku préparé wu àll bi mu war a dale ba seen numéro sëñ Alpha moo ko indi jox ko Alaaji Ibrahima Ciss ba tey jii ci gàttal rek lépp lu nekk ci sëriñ mu jël ko yóbbu ko yóbbu ko Saalum Saalum ci ñoom man foofu laa juddoo ñoom baatu sama yaay dafa ñëw di liggéeyal sëriñ bi sama papa ñëw di liggéeyal sëriñ bi ñëwin ji bi ñëw liggéeyal sëriñ bi man ci circonstance yooyu laa juddoo moo tax jigéen ñi ku ci deful ndànk rek nga am doom ju baax problème lay doon di taxal di bay di root na seen jibi mi Doudou Gueye ku ñuy wax Doudou Gueye mooy nekk imaamu raatu bu gorom moom lañ joxoon muy di sama yaay ku xam foofu ci wàllu làkkoor sama yaay di yegg sayu matt boo xam ne kenn xamul mu toll bu ñëwee toggal taale bi dem fekkaat nañ ci àll bi wala Nantew li ma magee bariwul ay treize ans quatorze ans la ma magee wala yaa sama yaay mag yow nag waaye nee naa ko li ma magee bariwul jibi tamit fekkee jihaat boobu ndax boobu góor gi day bay boobu konk la ñu xam defe naa konk xam mu xam ngeen konk da ngay dóor fii dóor fii cog dóor fii dóor fii xam naa ni ko xam bariwul ak soox soox benn bay yi ñuy bayee boobu loolu ma judd fi la toujours at mu wax jox ko góor gi ci sëñ bi moo tax léegi maa ngi wax ak ñi ma fi àndal muy Momadou Ciss sëñ ji xam na ko moo nekkoon suñu magum daara ak Ablaye Diallo mu nekk suñu ñu nekk ci daara bi sëñ ji bi moo doon suñu magum daara Momadou la nekk nga koy ak Ndiaye mi nga xam ne moom ma indi ci otoom moom fu ma jëm moom may indi moom mii moo doon suñu magum daara li ñu ma tuddee moo dem diggante loo xam ne xam naa diggante seen liggéey ak soo ko defe naa ay kilomètres yu bari la seen bi moo dem ci guddi gi doxe seen liggéey ba sookoon jëlaat ko indi ko te boobu àll bi yëpp ay bukkee fa nekk waaye neen bi ko góor gi nee gëmmal mu gëmmu bu daje woon ak gaynde sax ñëwee na ko mën na koo reen kon am na lu góor gi def ci moom kay na ko waaye ñun xam nañu ko ñun xam nañu am na lu góor gi def ci moom bu day ne së sëriñ Alpha wala yu bu day ne moom réew mi xam-xam yépp nekk mu jël njabootam ne Alaaji Ibrahima Si boobu xam na ne Alaaji Ibrahima Si am na lu mu am moo tax nit doom dañ koy day tar bi yu bàyyi kii kii sama doom fu ma dem day toog ci suuf téye ma may wax dafa gis ma koy defar sama bàyyi dama ko doon defar sama bàyyi dama bàyyi ma ko liggéeyal liggéeyal liggéey bay nañu Ablaye Diallo ma ni taxal nañu root nañu yalwaan nañu gën dàpp en 1960 bi jàmm moo di di di fay jaar ak moto yi di toog ci kaw ci laa commencé yalwaan te maa ko sama doom la moom mii yalwaan la toloxal du toloxal de dañu bëgg nga am njaboot goo xamante ne bii te kat jàng na alxuraan jàng na France transport logistique lay def waaw mu ngi formation xam nga lii boo jàngee tubaab la teel nga léegi waaye nit day bi yu bàyyam ba pare du ko soxlaal dara ñun si yooyu lañ juddoo sëriñ bi nga baal mi ci wàllu tarbiya rek la ñuy wax dégg naa ci suba euh, xaalis ko wax nee na boo demee ci kër yi jigéen ñi toll nañu nu ñu war a toll nee na jigéen góor ñëpp jeex nee na kon boo dem góor waaye jigéen ñi toll lu leen neex dépense courant ndox taw rek jigéen ñoo yaate bu réeg lay doon yow bu ñu ñu ne kii mooy ne leen mën laa rey boobu xalaat rek ah jigéen day liggéeyal sëriñ kii bu ñu xamal yaayam li mu daj mën naa jur seen ji mm-hmm. waaye nag gërëm loo am wax naa ne coupé nañu ndox ci kër wala ñu coupé courant ci kër ceeb bu jar fukki junne yi ci biir armoire du dëgg wala des boo xam ne jar nañ fukki junne mu ngi ci biir armoire ñu coupé sa ndox sa soxna di xool ñu coupé sa courant sa soxna di xool ni day jaayanteeg yàlla jigéen dafa war a jaayanteeg yàlla bu mën a jur kum ne eskay waaye jigéen bu yàqu see rek te jigéen ñi mëntu ñoo def dara ndax courant nga nii ndox nga nii teen a ngi nii machine wala nga nii boo joo taxanoo rootoo maire yi may wax xam nañ ci dara waaye ñun ñii suñuy way jóg sëriñ ji nii ci ñi leen di ko dimbali la bokk te moom kenn képp la woon en ah, sëriñ bi moom kenn képp la woon moo doon taxan di root di bay di dundal taalibe moo tax ñu mën a am doom yoo xamante ni ñëpp dañ leen jox cër loolu rek lañ doon gàttal wane sëñ bi daal sëglu bi góor gi def ci moom loolu rek doy dinaay wax ne tamit daaw alf dëgg-dëgg naawaguma leen jumaaw sëñ alfa bii ñëpp toog di seetaan ab njot wax képp kuy taalibe sëñ alfa def naa bu defoon junni iib ku nekk bu defoon junni ñu tabax ndimbal na ci ñeneen iib bu ñuy bu duñ ñëw rek dix millions yi jox leen ko noonu de am na action bu ñuy dugal waaye ñun ñëpp ñuy xool naan daa koo yeeyoo rek daa koo wax sama sëñ yal na yokk leeral ah kenn ku nekk boo boo jaayante woon ñu bi benn kees problème ci daaru alf ku ndaw juróomi téeméer ku mag junni léegi jumaa ji taxaw ñu dàq ci jumaa bu ñu xaar président de la bu ñu xaar kenn ndimbal na ci fekk loxo doon man lu ma ittee la chaque année ma wax ku day sëñ Alf bi muy ñëw fii defe naa ne fekk ni kenn tuugul mu ne ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di jihaad di xeex di jihaad di xeex ba tabax juma lim fi tabax ba léegi ñu di ko gis am nañu gàcce de kon ah garaam bu ñuy sol bu ñu fekkoon ne jet neer yi ñuy sol léeg-léeg sax sol yenn yére yi te daar daaru alko mel ne ah dinaay man wax rek laa am su ma mënoon ne gàddu sama ndax màjjal sax mën naa màjjal bu ñu liggéeyal seen yàlla ndax lu ko waaye defal yàlla dina la fay ndax moom mooy koo xamante ne kii sa baay nekkul jullit sa yaay nekkul jullit say frère nekkuñu jullit nga jihaad ba tund mi yëpp li ci ëpp ne ashhadu an laa ilaaha ñu toog di ko seetaan rek fu ñu jëm ah yal nañu yàlla yërëm balaa déwén daal nii président commune rurale wax muy Yves ñu ngi koy wax léegi yàlla na fii leer nañ am ndox waaye daaru alfa action bi tamit jumaa yéen ñii njaboot gi leen jéem njaboot gi ni ñuy wax aalu bayt yi combaan wax naa leen ko keroog maa koy ma ne dañuy xëy xëy benn almaa jóge fa leen ne damay doon ne si maay maay xalifa général sëñ Alpha ji jibi ci la nekk mais uh-huh. doon jàngal Ablaye Diallo mu ne toog moo doon ne ñoom ñoo doon suñu magum daara ñoo doon suñu kilifa kon nag action bi daal ñu ngi kontaan nañ ci ndaje ñu ñaan yàlla tànk yi ngeen ñëwee yàlla na ko yàlla def tànk faju aj te ngeen xam ne li ngeen am nit ku nekk xam nga dañu wax ne dama doon leeral ñu ne tiijaan warta siyaare beneen wàll yu budul tiijaan mais waxuñu siyaare de man fa la ma nekk caar yi ah fa la ma nekk caar yi murit tiijaan xaadir yëpp dama leen di mais dama tey seen xol ab murit xolam ndax di fa fekk kenn ku dul Serigne Touba ñu ne kenn ñeme woo ah ma ne ab tijaan tamit ñeme ne xolam nga xal ko fekk ci ku dul Cheikh Ahmad dañ koy leeral nit ñi mais ku ñu fekk ku ñu fekk rek dañ lay jox ceeb. man mii ci mbàkk mbàkk am naa ci turandoo kii mooy Mouhamad Fadal dañu fàllu siis Mouhamad Fadal siis kon benn mais xoolal bi boo ko xaral tey Cheikh Ahmad Tidiane moom moom ni mu mel ci Cheikh Tidiane sax ma melu waaw kon loolu dañ koy sëñ sëñ yi sëñ Maousmane naa loolu jar na leeral xoolu tijaan boo xaaj da koy fekk Seydi Hadji Malick wala Sëriñ Babacar wala Sëriñ Am boo ko jaxasee kenn boo ko jaxasee kenn rek génn na waaye nag waaw maa ngi ñëw foofu laa jël may ma maa ngi ñëw sa istindaat mooy mooy fi ma ko tëjee mooy nga toog ci télé bi di seet ba ci yàgg sama soxna ne xale bu góor bi ni mu rafete wala nu may def nooy def baal fa may def ah kenn ñu ne wala nga toog sa sa sa soxna nga naan xale nga naan diriyante bi ni mu rafet léegi yow sa xol bi yëpp jox nga ko koo mën naa tas que loolu lañ ne tere mooy sa xol bi yëpp nga jël ko nga dem ba ci yàgg nga dindi li nekk sa xol yëpp def ci keneen ku dul Cheikh Ahmad Tidiane wala keneen ku dul Seydi Hadji Malick wala keneen ku dul Sëñ Aliou ndax central bi Tivaouane la waaye fi am am am am na poste bu fi nek wa poste central bi nek boy jere jëlal sëñ Alpha def sa yoon nekkatul ci lenen sëñ Alpha lay jàllale Tivaouane jàllale kene keneen ñu jàllale la ba Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala kon ñi ngi gërëm ñëpp. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بالإسلام والإيمان رب العالمين ربنا بنعمته الألوان الرحمن الرحيم بعباده في القبور بالروح والريحان ملك يوم الدين يحكم على عباده بالعدل والإحسان إياك نعبد نخصك بالعبادة في كل وقت وأوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين أهل الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين مكي جلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موجي سنت يلا سبحانه وتعالى جي يتعي كتابي من ما يتيه دي جلسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم موجي خمني لنو يلا ما باكي من لكمه نخيط ويرتقبني وإنه إذا أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمي صلى الله عليه وسلم جاي وقت يسعق وخلق الأخلاق رأس الأنبياء فلا أسرة في موقع وخلق الأخلاق بعث الأنبياء لظهوره مقدمة فاعلم ولا تدري في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا هذا رسول الله يوم نزوله متقلدا بالحق والبرهان هذا غاية الكرم صلى الله عليه وسلم دي يكتنيو نيو الزيارة دي جهود حضر الله سيد الحاج مالك لا كنت أقول لك خليفة بن سيد أبو بكر سي محمد المنصور سيد باب مالك وسيد باب كسي الحاج مالسي والحاج عبد العزيز سي قطار بكي سما سرين سرين باب كسي عبد العزيز أكن يبوتو مام سيد الحاج مالك يقول جميتي مولن تلتي فيديو ويدل نيو بيتك وتلخل الخليفة الحاج تبي كمبانك sëriñ bi ñu lay nuyu di la ziyaara bu baax di la ñaanal yàlla yéen bi kenn du wax ne yàlla yéen bi oyof ah man bopp ma ko wax ku toll ni maam Alpha Thiombane nga wuutu ko ñu ne la bi yàlla oyof boobu yéen dootul oyof mukk dañuy ñaan kay mooy lu mu dis dis yàlla nañ ko yóbbu yàlla na yàlla jàppale may la kattan may la wér ba nga yóbbu ko ko ak seen i borom tokki la yàlla waxoon ni am na ci way gëm ñi min al muminina rijalu sadaqu ma ahadu llah alayhi wa minhum man qada nahbahu mooy maam alfak maam sa alxaji malik ak ñi mel ni ñoom wa minhum man yantasir mooy sëriñ jibi ak imam siis ak maam xaji malik nii ak ñi mel ni ñoom waaye yàlla nee na la ma sax ca ñoom mooy ma baddalu tabdila kon xalifa bi ñu ngi lay nuyu bu baax jotal la nuyoo xadara maam Seydi El Hadji Malick yëpp te nuyoo maam Cheikh El Hadji Malick mooy nuyoo maam Alfa Jombal ndax ñaar lañu woon ñu àndoon ànd gor ñu ànd xormaalante ngir yàlla ànd bàyyiwante xel ngir yàlla ànd joxante cër te yàlla tax seen ànd boobu nag du yàqu nit nag mën na ci yàqoo waaye du yàqu moom xam nga lu tax sëriñ yéen nga ni maam Alaaji Maalik bu dul woon maam Alpha maam Alpha bu dul woon Alaaji Maalik kenn ci ñoom ñaar bu dul woon sama lu neex a dégg nag ñu ma poussé réer ñaar ah. waaye maam Alpha sa turandoo parce que Alaaji Maalik bëgg ko woon sa turandoo it bu dul woon Alaaji Maalik d'accord xam nga tax kenn ku nekk bi jub yàlla moo la yëkkati woon nga jub fekk sa waram ci yàlla ngeen bëggante ngir yàlla moo tax ànd moom yàqu ndax maa kaana lillahi daaka wa tasal wa maa kaana maa kaana li gayrillahi inqataa wa tasal seen ànd boobu kenn ku nekk jàppoo woon sa waram ngir sa bopp mais da nga bëggoon sa waram ngir yàlla moo tax ànd bu ko yàqu yàlla yàlla yokk seen réew ñaanal xalifa bi yàlla ko yàlla may fan gudd yàlla ko yàlla may wér imaam sis mu lay nii di la ziyaara bu baax ndax it tër bi sa tër la ndax nag alquran du lu daw tey buñ ne xalifa maam alfa Jokalante sa wujur moo ko jàngal kooku cër la ndax inna alquran la huwa mizan taarifu minhu ma xawayta min al ashrafi wa sadaq rek Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu laajee Aïcha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan moo doon jikkoom dafa ni kaana xuluquhu alquran aw kaana quranan yamshi bayna annas kon ki jël alquran def ko ci dënnu doomu aadama waaye nga def ko ci dënnu doomu nitu yàlla kooku am na cër kon siis yàlla yàlla taxaw ñu lay ñaanal yàlla yëpp yàlla may defal lu gudd ak wér di nuyu sama mam xaaj Malick bu baax a moom it di ko ziyaara bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan gudd ak wér monsieur le maire jërëjëf yàlla yàlla taxaw bu baax a baax xaaj Malick si Maodo mooy wax ni teraanga yi ngeen settante su ngeen toogee danañ ko waxante waaye la nga dégg ku naan biw daf maa jigee ma mënuma koo seede comme ni imam sis mu ni déedéet kii la jigee nga war a seede kii la sori loo xam kon waxante yi ngeen waxante yu baax muy ay garanga yàlla na yàlla taxawu leen di nuyu tàggal Seydina Mouhamed ci waa kër Maam Anta yi fu ñu toll ñu ngi gis ne macha allah yal na yàlla barkeel baat yi yal na yàlla barkeel baat yi defal leen tam seen pap seen bay Abdou mooy wax ni tàggatu Seydina Mouhamed jaar na ci moom guddi gu mu tëddee gis rasulillah xam nga nag daal yeneen gisam ne ah eh? jaar na ci képp kuy tàgg Seydina Mouhamed ndax ginnaaw nag ginnaaw nag huwal murtadiya yawman yashibu nawafiya yaatu na nga ne yàlla wan na Seydina Muhammad ndax koo xamante ni sa dossier ëllëg moo la koy présenté ci kanam yàlla war nga ñaan yàlla ci weeru yàlla wan na ko bu tëwee nga ni yàlla sama at mi yàlla nga woon Seydina Muhammad bu tëwee nga ni yàlla sama dund gi bala ma génn àdduna wan ma rasulillahi bu defee mbokk yi ñu nuyu mbokk yi fi nekk yëpp إنيو الحاج عبد الله يتجو بخ مخلق سوى تيجي تكسرين دي بيت بيت بعد لايف تنيو ما يدوان بخاو صلي ولن مخال وتخمو كوتي واي عبد الله يمكن نيجي تكو زيارة عندك إمام مختار بلاد ساق ريت دوت إمام سيس كان لدي كبوت دوت سال فل يوم عطو جيما حفوف كيف نتكتك كفرين تتون جمع تتون جمع بانتر بلاد te ku xam maam ànda la ku miin Saalum miin maam Mor Khoudia si miin nga góor googu ñuy wax ànda la bi daal tabaarakallaahu ñu ànd ak moom ñëw ak Serigne Mokhtar ànd ak Abdoulahi ak mbokk yi ñuy àndal yëpp ñëw di nuyu mboolem njabootu maam Anta Diop maanaam góor ak jigéen bàyyiwuñu kenn di nuyu jigéen ñi di leen ñaanal yàlla bu baax yàlla yàlla yàggal taxawaay su ko defee xam naa guddi na te incha allah taala ñu ngi xaar gàmmu gi euh, Oustaz Faye guddi gi guddi gan la guddi Seydina Muhammad est ce que ñun bëgg na Seydina Muhammad wér ah walaysa naf'un waay damay laaj walaysa naf'un yaa amati ok ok wa taabi an sunnata yëg na ni oustaz Faye àddina ba mu teg benn sëriñ moo fi am

تكتني من طلب الوصول للدليل فليعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الله عبد بكاو تدعو أن بن قال القول ويل بدغل في سنة سيدنا محمد في نك ولي سيد الحاج مالك أي فتسو والإمام الفجع مالك أي فتسو والإمام سيد جمال إلى مبك ميربي ألم يكن يكون جب لم بكون بكوكو فمجارون جارو فا سؤال لي يستقل أنت diw laa yaakaar mooy sama sëriñ caaxaan baaxul kenn ku nekk tey ki nga ni mooy sa sëriñ nañu xool jëfoon tey ak sa jëf say wax ak ay waxam doxalinam ak sa doxalin dara bu ci te nag inna rajaa bu way inna rajaa la fi waadin loolu la sëriñ Babacar jàng inna rajaa la fi waadin kama tamaun del tegtaloo dara doo ko yaakaar te jub alal yi fii am ay taalibe waaye góor ñi amul la am na ci góor ñi état liberté jigéen ñi am na ok xam nga Oustaz Faye dañ lay wax ni usulu tarixatina Seydina Cheikh umb na ku sag taalibe wala ngay ñëw ci seen bi moo lay jox tariqat yi wala ngay ñëw ci bàyyi bàyyi wala ngay ñëw ci imam siis dafa am juróom benn point yoo xam ni faaw nga ràmp bi ci njëkk moo di ak tawassul bi kitabillah da ngay nangoo àtte woo alquraanul karim Sénégal ñu ni Sénégal pays lay ala alquran te sa bàyyi Abdou Aziz Dabakh daan na wax ni dusturuna nahnu kitaabullahi man jaa'ana bi ghayrihi falaa diin boo tegtee ni wa maa lanaa kodul kon wa maa lanaa kodul siwa alquran fa ghayruhu fa huwa kodu shaytan kon pour nga nekk taalibe Sëriñ Cheikh wala sax pour nga nekk jullit da ngay nangoo Al Qur'an alquran Al alquran ñaata xaraf la Al Qur'an Al mhm. Qur'an alif Lam qaaf Ra dikkent alif Nur juróom alif Budi nekk bi mooy taxaw taxawaayu allahu la ilaha illa huwa alxayu qayum taali bi ko may laam bi mooy laqad jaakum allahu muhammad waaw di nga jàng ci alquranul karim yàlla ni inna allaha binnaasi la raufun rahim waaye di nga jàng it laqad jaakum rasulun min anfusikum in shitum rasulun min anfusikum in shitum عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم به رؤوف رحيم قل إذا كان الله رؤوفا ورحيما بالناس فإن سيدنا محمدا رؤوفا رحيما بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم قال لا بما يحجاكم قابي ويقول اللهم مالك الملك يا لنا سنتي لما كفتك كتي بتنام جاكل ما كلي ما فتك كتي بكل نام كتي جيم دانا مالك كتي الملك من تشاء أه، ويخاف بي راجل الرحمن علم القران يعني لنا امام سيس اك اي وجه لما يلا مالا نيك ني جانغ القران باباي امام سيس جانغ سديبي القران دا ما يلا كيف كو جانغ لما نوت دا الرحمن علم القران تكن تكي وي امر رسول ديغا دا بجي بير لا نفرق بين احد من رسوله ما يلا دا واخا ku ci nekk am nga nit yàlla boo àndal waaye xamal ni alif bi xëcc ci kër gi bi moo di inna allaha astafa adama wa nuuxan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamina soo bëggee ndam da ngay nangoo tarbiyew nuun bi ci mujj ci kay watu alquran moo di nuun wal qalami wa ma yasuur ma anta bi ni'mati rabbika bi majnuun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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوكي جوليتي بوكي طالبي كليف ديني كليف آدي noo ngi leen di nuyu ci turu xalifa bi ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ah man day dama jaxle lu tax ma jaxle nag mooy dafa am ñaari mbir yoo xam ni moom lañ ma bëgg a dénk te samay yëf matewu ko bu jëkk bi mooy dañ ma diwal lem ci samay tiñ te ñu ni ma sama làmmiñ bu ci laal bu ñaareel bi mooy sëriñ bi dafa yàq cere baase tey ci ñeexam te la ma yor farut kon su ma sañoon dañ may jéggal sax kàddu yi ndax kàddu yi fi sëriñ bi wax rekk doy na sëkk su ko defee ñuy jiital ci li mënuta ñàkk nuyoo ak ngërëm ak sant ak ziyaar boo xam ni moo ngi tukkee ci profondeuru xolu xalifa bi di ko jëmale ci li nga xam ne mooy sëriñam di xaritam di itam sunu kilifa di mm, alxaaji maam Ousmane si sëñ maam Ousmane mu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyoo ak ziar yoo xam ni moo ngi tukkee ci xolu kilifa gi xolom seddoon na ci yow lu jiitu tey waaye gën na seddaat li li nga jëf nii tey nee na sa teewaay kese ci bërëb bi doyoon na lépp ndax kan moo la meññ ñu ni maam alhaaji abdul aziz si dabbaax malik waaye jile loolu doy na sëg kon leneen luñ ci tolliwaat wallahi day bam rek kon nii nga mën a mel mënoo mel neneen nu dul nii woon kon jërëjëf si malik ñu ngi lay sant di la gërëm fa tabarakallahu nu daal ci kii rek di gërëm ki nga xam ni moom moo fi toogal chef de l'État fii ci jotaay bi toogal fi premier ministre toogal fi ministre de l'intérieur toogal fi ministre d'État toogal fi ministère yi nga xam ne ñoo aju ci loolu yépp waaye toogal fi gouverneur de la région waaye toogal fi ki nga xam ne mooy préfet départemental toogal fi sous-préfet de euh, arrondissement waaye toog fi toogaayu maire mooy monsieur Yves Lamine Cissé Yves ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax xam naa xejul tey ci jotaay bi ci la waroon a wax ci yow waaye gërëm nañu la sant nañ la bu baax a baax parce que bu ñu dee wax ci yow yaakaar naa ñi fi toog yépp xam nañu li ne ci yow waaye di gërëm itam monsieur la maire bu Notto Magueye Ndiaye yaakaar na adjoint mi ngi fi gis naa ko léegi mooy Serigne Mbengue ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant waaye di gërëm itam mboolem kilifa diine boo xam ni jóge na ci gox ñëw fi te gis ñu gisuñu la am maa ñu gis nañ la wala gisuñu la jàppal ni sëriñ bi mu ngi lay sant di la gërëm waaye di gërëm particulièrement ki nga xam ni moo toog ci wetu góor gi di sunu wayjur di sunu lépp di sunu conseiller du mës a jóg mukk di ñu wax ni jàpp leen fii bàyyi leen fii mooy kan mooy sunu wayjur bi toog alhaaji ahmed siis di euh, taawu mam ibrahim ma siise bu puut tan xalifaam tey doon itam imam ca caare kon papa ñu ngi lay di la ziara bu baax ci turu ki nga xam ne mooy xalifa bi waaye di gërëm itam mboolem président daaire boo xam ni ñëw na ci bisu tey bi wala daan fi ñëw mu ngi lay gërëm di la sant di gërëm itam li nga xam ne mooy président fédération yi ñuy jiital ci président fédération yi président fédération nationale bu jëkk mooy alhaaji Abdou Dieng tey ñu ngi ko bàyyi ci loxo Ibrahima Mbeng ak assan Diop ñu ci teg itam président fédération bu kër Serigne Alpha Thiombane ca mooy sopp Serigne Alpha Thiombane te sama papa Samba Mbengue jiite ko ñoo ngi gërëm bay Samba Mbengue bu baax ñu ciy teg itam président fédération bu kër sëriñ Jibril Thiombane te ki nga xam ni mooy Abdou Khadar Thiombane jiite ko sëriñ bi mu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax waaye itam di gërëm mboolem koo xam ni maanaam danga nga nekk xaritam wala nga nekk soppeem nga jóge ci dëkk ba nga jóge ñëw ba egsi fi sëriñ bi gërëm na ñëpp sant na ñëpp waaye mu ngi beral loxo li nga xam ne mooy imam yi nekk ci tund bi yëpp di ci jiital nekk ki nga xam ne mooy seen euh, njiit di imam Malick Faye mii toog bay Malick Serigne bi moo ngi jël ngërëmu imam yépp teg ko ci sa loxo bi gàmmu gi jubee Serigne bi santoon nañu tourner pour ñu jaaral ko mboolem imam boo xam ne nekk na ci biir tund bi yàlla dimbali nañu eh, bu fekkente ni téeméer la woon tamit góor góorlu nañu ba am ci juróom ñeent fukk ya kenn ku ci ne ñu demal ko ca toog ak moom laaxan ko kàddu yi sëriñ bi wax fa tabarakallahu sànq ci ngoon imaam yëpp teew nañu te teewoon nañu la nga xam ni fa tabarakallahu moo nekkoon seen aada kon sëriñ baa ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm